ay jaaykat ya nekk ca marché ak H&M ginnaaw bi ñu toogee lu toll ci juróom-ñetti weer jaayuñu ndax mbas mi maire bi nag taxawu leen ngir ñu fay taxe loole nag jur coow ñu am ci ay gis-gis yu wuute donte fay nañ yooyu koppar. coronavirus bi daf ñu xamloo mhm. patente yi ñëw doggale ñi mhm. noonu la demee mhm. waroon nañ ñi mën a wàññil nag parce que toog nañ marché bi wërngal këmm commerçant ak tailleur ak menuisier métal ak jaaykatu gerte lépp. toog nañ ci corona bi lu mat cinq mois yoo xam ne liggéeyuñ ko am ay arriéré location ak borom kër yi am ay euh, arriéré location kër yiñ dëkk patant bi bu ñu wax ne mairie bi la mairie bi demul ci poosu mairie bi impôt yoo domaine la jëm te impôt yoo domaine ci état la kon tey njiitu réew mi moo waroon a xool li askan wi dund sonn lool mu wàññi leen patente yi patente yi wàññi wuñ ko de ku nekk la nga daan fay nga fay. di wax ni patente yi dëgg la am na lu fi jaar lép lépp kenn werantewul ni patente yi droit la quoi mais droit yi tamit dafa am foo xam si ni bu fa bu fa àggee ba sës war nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que mën naa ni ay arrière si ginnaaw ni am na ci yuñ jógee yu metti yu difficulté yoo xam ne maanaam bépp Sénégalais bu taxaw ni dundoo ko wala sa mbokk dund ko xëy na da ngaa génnul comprendre nga. muy Covid bi fi jaar ba léegi ni sax ñu ngi ci Covid bi maanaam ak yeneen faa yoo xam si jeunesse bi euh, dëkk bi metti na xam nga da ngay toog xëy soo ba ngoon lal sa bagage wara xëy jaay benn client ngay am wala ñaari client te boo ko jaayee loolu lekk lay doon wala loo yóbbu kër ga. xam wala buñ ko buñ ko mënta may tamit ku daan fay cinquante mille ñu defal la ko vingt mille wala ñu defal la ko quinze mille mhm. mais dëkk bi ni mel ñun ñëpp ñoo ko gis ñoo ko gisandoo mhm. vraiment ñun yaakaaroon na ne daal même buñ ko moytu danañ ko wàññi mhm. mais dafa mel ni sax dañ koo gën a yokk. leneen lu jaaykat yi wax bokk na ci koppax gi ñu wax ni dañ leen koy jébbal jëm ci fond force Covid 19 bi ñoom nag daal dinañuy xamle ne gisuñu benn yoon a googu koppax. kenn jotu ko man mii bindoon nañ ma ma photocopier sama carte d'identité joxe sama adresse su kër jotuma pepp ceeb waaye méttiwut ma ba mu juddoo ba léegi maa ngi dund dund bu neex yàlla moo ma koy jox état joxut ma ko mosuma yaakaar état ci dund waaw noonu la fa demee. wax ni dañuy dimbali commerçant yi ah man de commerçant la mais vraiment depuis Covid bi ba mu commencé ba léegi nii gisuma benn dimbal boo xam si ni sama benn commerçant am na ko muy ñi ma dendal muy keneen ak keneen gisuma kenn ku ci am dimbal. waaw te digoon nañ ko dañ koy dig nag si télé bi la si télé bi rek lañ ko déggee ñu ni commerçant yi génne leen tant de milliards nangam dinañ leen jox mais ba léegi ñun gisaguñ suñ ndimbal gisaguñ suñ bopp mais nag wax dëgg yàlla ñun moom ñu ngi sant yàlla heure suñu xëyee dinañ am luñ lekk dinañ am luñ naan waaw li ñuy wax daal nguur gi mooy lépp lu muy diglante commerçant yi mu koy wax ci télé bi ba ñëpp di ci teg bët ah, nañ ko def gisuñu ko de man de gisuma ko dégguma ko. amul kenn ku fi gisuñu ko de gouvernement waaw gouvernement bi yooyu seen seen i la dañ koy wax rek mais doo ko gis doo ko dégg même bu dee ñëw sax mën na tag si ñoo xam ne si ne si ñi fi mu war a jaar ba ñëw foofu lay tag doo ko gis ci ñi ko war a jot dëgg du fa yegsi la mhm. boo gisuñu ko ñun